sunu borom nak bi bindé bindee suuf si jamono di fi dox di fi dox di fi dox dañoo dem ba yàgg mu wàcc fi ay jinne ay jinne yoo xam ni yii tali na santoon ay ndigal tere woon leen itam ay tere bokk na ci yam leen tere woon tur teret ak jëf yu ñaaw yi mel ne moom ñu nekk fi nag ba mujj mbewte dugg leen ñu fi tur deret ak a yàq yàq gu bari ba sunu borom xel leen dal di yebal malaayika yi ngir ñu alag leen malaayika yi nag bi ñu ñëwee alag nañu leen ci xeeti ngelaw ak xeeti yuux yoo xam ne biñ leen alagay bañ jeex tàkk ba ñuy yéeg ca janju baytul muqtis ba yéegaat di dem am ci malaaka yu romb ak géej géej googee ca tefes ga ca lañu fekk ab ab ab ab ab liirub jinne bu jigéen sun borom digal leen nag ñu àndaale ko ci kaw bañ ko àndaalee ci kaw nag ñi di kan? ko yar di ko yar ba mu màgg mu mujj nag bu ñu dee julli koy maamam ñu jëkk ji jàpp ko ñu ñëw ci seen kanam taxaw ci seen kanam di leen jiitu di leen wan awraam bañ ko waxee suñ borom suñ borom digal leen ñu jël ak gilin ca sawara mooy aw yab woo xam ne bopp xalu sawara ci nekk ñu ñuux ko ci pay ba bañ ko defee nag xalu sawara wa des ca xalu sawara way moom la ëmbu ba matu ko muy iblis lahnatullahi alayhi defete nak ñu jël gilu sa gilu wara ba jam ko ci ba ñu rocce bant ba xalwa dess ci bir ba bir bobé nak mom la ëmbu dama ko ëmbé nak ba mat ko jur ko dom dom jojé moy iblis lahnatullahi alayhi lolo tax mu doon wax sun borom ba muy waxante ak mom nako khalaqtani min neerin ci sawara nga ma bind ndax ci xalu sawara bobé ci lañ ko bindé iblis nak nek ci malai malaika yi juddo ci seen bir yaro ci seen bir ba yor seeni jikko doon ab jaamukati yàlla bu mag boo xam ne bii wax nañ ne bi mu màggee sun borom xasaasil sax la ko tudde woon mu bokk ci malaayika yi mu jox ko kilifteef bu mag yoroon na fi bëkk néegu àjjana bëkk néegu àjjana doonoon bëkk néegu àjjana ni ko ridwaan doone tey yoroon na fi itam kilifteefu kaw suuf gii ak asamaan su njëkk si nga xam ne moo fi daan digle daan fi tere am na ñu wax ne sax àggoon na ci kilifteef Seydina Jibril alayhi salaam nga xam ne moo jiite malaayka yépp doonoon jaam ko ci yàlla boo xam ne nag wax na ñu ne foo teg sa tànk ci kaw suuf te jaan mattu la fa iblis su na fa suñu borom jaamu na yàlla téeméeri junniy at ak ñaar fukki junniy at sunu borom tën doog a tën suñu maam aadama bi suñu borom tënee suñu maam aadama lu ko jiitu iblis dafa bis da doon dox ci pays suñu borom yi ba gis ci way sun borom yi sun borom wax ci jenn alliwa wax ne buñ demee ba nangami junni at day dinaa bind am mindeef moo xam ne dinaa digal sama malaayka yépp ñu sujjootal ko bu ma leen digalee ñu sujjootal ko nag dana am ko bañ ku bañ kookee nag ku yàqule lay doon ba mu gisee sun borom bind loolu ci ji mu ne aha kan moo sañ a eh, gàntu ndigalal suñu borom bañ àgg ca ma xool ba xam kan lay doon bi jamono doxee ba junni at yooyee mat nangami junni at yooyee mat sun borom bind sun maam aadama dajale malaayika yëpp ci benn pàkk teg sunu maam aadama ginnaaw ba mu walee ci moom ak ruu ba noppi iblis nag daal di xam ne lii la suñu borom doon wax mu fas yéenee taxaw nag xool ba xam bu suñu borom digle ndigal li kan mooy gàntu mu bere na taxaw moom ci kan moo sañ sunu borom nag ba leen wooyee bañ dikk mu am lu mu leen wax daan na leen usjudoo li aadama su jootal leen aadama mii te ndigalal suñu borom kat dafa aajowoo jokk jokk mooy bi kàddu gi daanoo rek jëf ji daal cay topp sofa ca bam ne usjudoo li aadama su jootal leen aadama ñoom ñëpp ñu rod dal di su joot iblis moom taxaw ñàkk a jokk ndigal loolee nag yóbbi ko bi malayka yépp su jootee daal di siggi gis ko moom dong mu taxaw ñu ne ko yow da nga dul su joot da nga dul su joot ñoom ñëpp wax ndok ko ak rëy jàpp ko foofu mu daal di bañ daal di rëy rëy lu wedd yàlla daal di ne man duma ko su jootal ndax yow yàlla sama borom kii ci band rek nga ko bind te man mii nag ci leerug sawara nga ma bind kon maa ko gën du ko sujjóot ak mu ko ba mu waxee loolu nag suñu borom daan ne ko génnal ci sama yërmande ci ku ñu jam nga ku ñuy dàq nga ku ñuy rëbb nga ku ñuy dàq nga génnal nu mu gën a gaawe mbooleem lu ma la joxoon nangu naa ko lu baaxoon ci yow def naa ko lu bon lépp lu doon leer ci yow tam soppi naa ko lëndëm iblis nag daal di rus mer foofee daal di waxanteeg suñu borom daal di giñ daan ko giñ naa ci sa tedd nga gi giñ naa ci tedd gi nga teg yow yàlla suñu borom dina bewlo setam yep doomu adama yep na leen sëdd bewloo bam mu sa jaam yi nga xamne ne yaa leen sellalal sa bop ginna ci li ma ne dina yoon wi nga xamne mu yoon wu jub jëm si ci yow dina galandu ci digg ba ba kenn du ci mën aksi ci yow mi ngi melni yoonu tuba bii bu fekkonte ne wota yep dañoo gurgurando wuti tuba màggaluk tuba bañ demee ba ci yoon am nak wo xamne ne na digënté asamaan ak suuf teud ci digg tëli bi te wenn yoon wi rek fi am wu jëm tubaa xam ngeen ne kon coow dana bari balaa kenn romb nag woowu da nga sonn lool Iblis nag noonu la ci digg yoonu Touba la galandu eh, yoon yoonu yoonu ci digg yoonu tubaa sax waaw mooy yoonu yàlla rek ci la galandu fas yéene képp ku jëm si ci yàlla mu fas yéene laa dog ba doo agsi xeex ak yow boog ba nga xam ne ba ngir nga àgg coono yi bari ngay jànkoonteel door ko door àgg daan ne ko dinaa leen dikkee ndijoor dikkee leen càmmoñ dikkee leen kanam dikkee leen gannaaw dina fexé ba dox seen ak sant dina fexé ba ñi lay sant ci doom aadama yi duñu bari ndax xamna né ne sant yalla dafa am doole dafa gawa duggal euh, dugal nit aljana mo waral mu dal ne ko dina fexé ba ñi ëpp ci ñom duñu sant dal di ne ko euh, moom ci bopam nak mom ginaaw mëna ma ko dara ci ay sëtam mom li ma la wax dina ko ci def sun borom nak dal ne ko demal boo démé ku la neex nang ko aj ajé ci sa kat ci sa baat moy na nga woote bo wootee ku la neex ci ñom Eh, ku la ci wuyu fa lillahi alhamdu nanu xam ne ñooñee ak yow dinaa feesal sawara ci yéen laman mu tabi'aka minhum la am la anna jahannam minkum ajmahin ba suñu borom gi ñee wax loolu nag ne giñ naa ne dinaa feesal sawara ci yéen mu yow iblis ak ñi la topp boobee nag la digal malaayika yi nag la digal aadama ak eh, awa ñu dugg àjjana dëkk ba tere leen ak garab iblis nag ñëw taxaw fexe ba lekk loo leen garab googu yooyu leen yàlla tere woon sun borom dal leen di wàcc ndoo ñoom ñëpp ci kaw suuf iblis moom bi mu wàccee ci kaw suuf iblis moom bi mu wàccee ci kaw suuf sun maam adama wàcc xawaa wàcc jamono tàmbalee dox mooy àdduna bi tàmbalee dox ci la iblis tàmbali ab liggéeyam fas yéene sëti aadama yi mboolem lu aadama juf mu yàqu ko fexe ba boole ko ci waa sawar mi ngi ci njëkk daan ku ñuy wax xaabil moom moo rey xaabil ñoo bokk nday ak baay kenn ku ci nekk am jigéen ju mu seexandool ñaari jigéen yeen ñu seexandool nag bi ñu màggandoo ak ñoom sunu borom digal sunu maam aadama mu mu digal mu dencal ki ki juddóondoog xaabil mu dencal ko xaabil ki juddóondoog xaabil mu dencal ko xaabil bi mu diglee loolu nag xaabil daal ne man ki ma juddóondool moo gën a rafet kee ku ñaaw kee du ma ko denc sama seex laay denk lay lay laay àndal moom laay eh, kii mu ne ko yàlla ma ko digal mu ne ko yàlla digal la dara da ngay da nga ko def ci sa xalaat rek mu daan leen nag da ngeen jegeñ lu mooy kii yor lu bokk ci dugub kii kii yor lu bokk kii yor am xaaf ñu dem am fuñ ko teg di ñaan ba ñuy ñaan ba yàgg aw sawara bàyyi ko ca eh, asamaan se dal di lekk xarum dal di yóbbu xarum habil ma ñu dal di xam kon habil ma war a denc kooku loolu la yàlla santaane ba loolu amee nag xaabil daat cay mer fexeel ko ba rey ko nga xam kon moom la njëkk daan boobee nag ba bisub tey bii noppaluwul wax nañu ne xef ak xipp gu jot pëyum mu góor ak pëy mu jigéen la yor moo xam ne saa su ne mi ngi sëy te bu dee sëy dana nen ay ay ay ay nen yu bari yoo xam ne nen bu ci nekk ñaari juróom-ñaar fukki seytaane yu góor ak juróom-ñaar fukki seytaan yu jigéen dana génn ci nen bu ne te bu ñu jógee ci ndiir su gàtt ci la ñuy màgg mat sëkk daal di tasaaroo ci àdduna bi te fas yéenee sànq doomu aadama yi dugal leen sawara loolu mooy pas loolu mooy aw yoonam jamono yooyu nag wax nañu ne sunu borom bi iblis bi mi ngi mi ngi waxanteeg sunu borom di ko wax ne ko yow de defal nga doomu aadama yi kaw suuf si muy seeni dëkkuwaay man mii nag maak samay set lan mooy sunuy dëkkuwaay sunu borom daal di koy xamal ne ko dënni doomu aadama yi def naa ko muy seeni dëkkuwaay ba yemal xiyam jinne yi am na fu ñuy dëkk bàyyima yi am na fu ñuy dëkk ndogmente yi am na fu ñuy dëkk rab yi am na fu ñuy dëkk niki noonu doomu aadama yi ak picc yi ak jën yi ak xeeti mbindeef yëpp seytaan yi nag ba ñu laajee sunu borom fan la leen sunu borom dëxal dana leen xoli doomu aadama yi moom ngeen di dëkk ba yomal xel wax nañu ne itam am na benn àddina ci àddina yi ci suuf yi juróom-ñaar boo xam ne bii iblis la ko dëxal moom moo fa dëkk nga xam ne boo fa demee ab buur la fa boo xam ne ab lal wurus ci ay wurusam xeeti wurusam la teg ci kawam ndox di diir mbagg sun borom ndax fa mu ne wakkaan harso yi aras ci kaw aras muy lalu sun borom ba ci kaw ndox la nekk moom itam mu ne ginnaaw maa yàlla suuf si may itam naa jël sama lal teg ko ci kawam ndox yàlla ëpp léwu ma dara di diir mbagg yàlla ngir gën koo mën a weddi foofee boo fa demee wax nañ ñi ko gën a jege gën faa xej mooy ñi gën a mën a sànq doomu aadama yi ñi ëpp luñ dugal euh, sawara ci doomu aadama ñoo ko gën a jege ñoo fa gën a xejj ñoom la gën a teral ñoom la gën a yëkkati léegi nag ñu bëgg a waxtaan nag ginnaaw bu ñu leeralee loolu ci jëmmi xol ci boppam ni nga xam ne noonu la ko seytaane yi sànke ak niñ ko yàqe danañ ci indi nag tegtal yu wóor yu ñuy jëlee ci alquran ak yu ñuy jëlee ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa ak li ñuy jëlee ci wax euh, waxi Sëriñ Tubaa ak wax yi ñu baax ñi bismillah iblis li tax mu noonu doomu aadama comme xam nañ ko ci biir wax ji bët bi mu yàqule aadama tax mu yàqule ndax ñàkk ko su jóotal te ba ko sun borom ba leen sun borom digalee ñoom malaayka yi ñu su jóotal aadama wax nañ ne jibril moo njëkk su jóot malaayka yi topp ko iblis bañ bi nga ne bii nag malaika yi siggi nañu gis bañ gi iblis bañ ak natt bu mag bi ko dal muy gàntu ndigal suñu borom te man cee yàqule faw ñoom ñu ñu bég ci lool lool ci xéewal gi nga xam ne yàlla xéewale na leen ko ba ñoom ñu nangu nangu gi leen yàlla xéewale ñu ñu bég ca lool ba tax ñu dal di dolli ab sujjóot sujjóotaat ngir sant yàlla suñu borom ci tawféexal gi mu leen tawféexal ba ñu jëfe ndigalam loolu nga xam ne ci la leen di terale faw sujjóotaat boobu nag moo waral bu ñu julli julli yu juróom julli yu juróom doon ñaari sujjóot loolu moo ko waral léegi nag Iblis mer ca loola ndax xam na ne yàqule na faw naagu na yërmande yàlla wax na ne looloo tax mu ñu tudde ko Iblis Iblis li annahu ablasa min rahmatillahi dafa naagu yërmande yàlla mooy ki nga xam ne wóor na ko ne moom mënta mos mënta xetuk àjjana mënu koo xeeñ faw faw abadam mooy ki nga xam na ko ne mënta am teraanga mënta am lu ko neex mënta am mbégte ba faw naagu na yërmande yàlla li muy yaatu yaatu yaatu yaatu ba daj mi ndéef yépp xamna ni adam aadama mënalu ko dara ndax ab yonent la ta sun borom moko ko bind ci loxom mënu koo yàq mu fas nak lu mu jur rek mu duggal ko sawar waral nono ka ba mu ñëwee ci adina nak di tamlé jur di jur di jur wax nañu ne amna borom xam-xam bu tuddu hasan bi wax ni setan yi ni ñu bare fi ci adina si mi ngi melni ab toker bo dugg ab tol bo dugg bo xamni bi ay njereer muy ay dañ fa fess del sam tool bi ba mu fees dell sam garab ya sam suuf sa ba mënoo gis suuf sa mënoo gis itam xobi garab ya nga xam ne boo dee dugg di dox ci biir tookar bi boo yëkkatee sa tànk ay njéeréer naaw jëm nii ay njéeréer naaw jëm nee saa boo yëkkatee sa tànk ngir bari guñ fa bari wax nañu ne seytaane yi noonu la ñu baree fii ci àddina waaye sunu borom dafa xam ne bu ñu muuruloon kiiraay li dox suñ diggante kon duñu mën a dund ci àddina si dund gu neex moo tax mu nëbb mu nëbb ko bët kër boobu nag càllmeer lu am doole bu fa duggee kon wóor na la ne jëmmi càllmeer la ci boppam ak li ko wër benn njëree du fa jege naka noonu nit yàlla yi nga xam ne dañoo jege yàlla suñu borom tabaraka wa taala lool fees dell ak leere suñu borom leere suñu borom ak doole yooyu nga xam ne moo leen di dikkal ak lële suñu borom yi leen di dikkal tax na ba fa ñu nekk dañuy dàq seytaane yi ci xasab yu baree baree bare ni nga xam ne noonu la ngelaw lu bari loolu mën a Euh, sa euh, njëréer yu bari ci biir tookar boobu loolu tax jege leen baax ak leen wéttaliko ak leen liggéeyal léegi nag bi nga xamante ne bii noonu ñu ko waxee woon ca tàmbali ba xol moom bi muy nekk gone nit ki bi muy nekk gone xol bi dafa set wecc seytaan yi nag bu ñu agsee dañuy fexe ba dugg ci biir xol bi ràbbaloo daldi jël seeni wey jam ko ci xefi bëti xol boobu nga xamne bu gimmé rek ci yenen ci ri ci def yépp daldi dañ koy jam ci ñaari mbari bët bu ben benn di dikkee kotom jam benen setan day ñew daari jamaat ci wetam beneen seetaan wat jamaat ci wetam ba bët ba dacc ñu ko tejj ko ngir du mën gis ci kiimaan suñu borom yi du mën dund ci xéewal yalla ñi bu ko defé itam danañ ne ci ñap ñapay bo xam moy raw ni di def ci ginnaw fas moy kutt ni mi def ci ginnaw fas nañ cay ñàppaarale moo koy raw nga xam ne caaxaan leen fa jëlee daanaka xaw naa misaaloo sax ni njugub yi di ajoo ci kaw garab yi ron yi rek ñoom noonu la ñuy def foofu ci biir xol bi am ci nag kuy seytaane boo xam ne wax nañ ne yonent yàlla Isaa mooy ko jëkk a gis saa su ne ci mbagg mi lay toog yor lu mel ne ñaxub ñay ñaxub ñay boobu nag moom lay téye ab bën bën la am da koy téye teg ko ci gimiñ gi bu ko defee cat li mu teg ko ci xol bi nga xam ne saa su ne da ci wal ay xeeti njabar yu bon ak ak ak ak ak i tooke yoo xam ne yii day day day dem ci xol bi bu ko defee xol bi di ci mandi bu dee toq ci xol bi xol bi da cay mandi xol bi nag lu mu ci gën a mandi di gën a bañ yàlla di gën a bañ lu jëm ci mbirum yàlla wala yaasu billahi taala seetaan sosu ci mbagg mi lay nekk bu ko defee ñoxum ñee bi dana gudd baaga ci xol bi mu téye ko nii di ca wal njabar gu bon googu ak sobe su bare su bari sos nga xamni mo koy bo defé ci xol bi moy waral nit ki du sawar ci jamm yalla moy waral nit ki itam ñu koy gëna a not ci biir setan yoyu dañuy jurante ci biir xol bi ak ci biir jëm ba mujj tasaaroo ci biir jëm ba mujj fess del jëm mbolem xaaji jëm ji yëpp yëpp yëpp yëpp bay daw ci biir yaram bi ni deret ji di dawé ci biir yaram bi loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo wax inna seytaana la yajri min ibni aadama majra dami seytaane day daw ci doomu aadama daw waayu deret ni deret amee doole ci jëmm ji nga xam ne du taxaw saa su ne saa su ne mi ngi demee ko dikk noonu la seytaane yi mel ci biir jëmmi doomu aadama yi bu fekkente ne ku sàggan ci ci yàlla la am na nag ñu ci yàlla musal ña ci yàlla musal nag yàlla nañ ci yàlla boole ndax mooy ña ña tax muy wax ne inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam yi iblis ba mu waxee la muy wax ba tëkku bi muy tëkku ba àggal suñu borom dana ko sama jaam yi dëgg dëgg de amoo ci ñoom pexe mënoo ci ñoom dara doo mën ci ñoom dara man maa leen di aaral sama bopp mooy ñi nga xam ne Iblis dana leen jaaral jaarale fu ne dana leen jéem a teg natt yu ne dana leen wutal xeeti noonu yu ne mel ne yonent yàlla ay yóbba ak yonente yi sax ñi ci bari daanaka ñëpp ci jaar ak wàllu yi ba ci sëñ Tuubaa mi nga xam ne bi mu ñëwee moom moo ci gën a métti lay natt fekk na xel mat sëkk mu jël ñi ëpp xel ëpp ay pexe ci àddina mu xirtal leen ci kawam ñu yóbbu ko ci barab boo xam ne lu bakkan di bañ lu ne lu ñu xam def nañ ko moo xam ay xërëm la wala pexe doomu adama juróom-ñaari àddina sëkk sunu borom musal ko ci yaayu mutakallim jooju ci xibaar yi nag yal nañ ci yàlla boole ci daraje Serigne Touba ndax ku ca bokk mucc nga ci seytaane faw li mu bëgg jéew du ko am léegi nag ñu siwaat ci lool fi ko alquran di wax mom leer na moy sar wiñ doon jang legi bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas Nasi, yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas sun borom tabaraka taala dafa waxon yenen tabi sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal ne ma ngi muslu ci borom nit ñi ki nga xamni mom mom nit ñi di yalla nit ñi ma ngi muslu ci dara jam ma ngi muslu ci akam maa ngi muslu ci ak màggam maanaam yow yàlla nga musal ma ci ayu seytaane mi nga xam ne mooy nekk ci biir dënni nit ñi di di ko yëngal di ci jax-jaxal mooy di ci sànni ay xalaat yoo xam ne xalaat yu baaxut la xalaat yooyu nag ñoom seytaane yi buñ ci nekkee duñu noppi saa su ne ñi ngi fas yéene def ci xelum nit ki ne yàlla amut ak yooyu buñ ko mënut danañ fexe ba la wax loolu ñaaw ci xormay suñu borom yi mooy xàddaray suñu borom yi bu fekkente Euh, bu fekkente ne mënuñ laa jaare foofu danañ fexe ba dëddali la jaamu yàlla te buñ la dëddalee jaamu yàlla rek liñ bëgg ci yow saa su ne dañ koy am loolu moo waral saa su ne bu fekkente ne yaa ngi def ak jaamu yàlla wala yaa ngi def lu baax ñu fexe ba di diisal sa yaram bi ak di la tàyyelloo ñoom ñoo koy def xalaat yu bon yi nga xam ne yaa ngi koy xalaat itam te neexu la itam du yow ñoo ma boobaa nag la cay saafara mooy bu tàmbalee rek nga dog xalaat yooyu jéem a xalaatat leneen ndax boo ca àndeeg ñoom da nga ci am bàkkaar bu fekkee àndoo ci ak ñoom nag donte rëccale nañu ba wax lu bon sax la ñu wax ñoom ñoo koy gàdd waaye yow sa yoon néewu ci am na nit ku baax koo xam ne dafa am ku mas a ñëw ci moom ne ko man de sama xol bi day xalaat xalaat yu ñaaw yu bon yoo xam ne damaa naqari lool nag dama ci amul pexe rek ma bëgg nga wax ma ci nag naka pexe mu ne ko saa bu ñëwatee na nga bég mbégte mu am doole saabu bu ñëwatee rek na nga bég lool di ree bég mu bég yem lol de boko tambalé dotul ñew néna mu fas ko yéné tambalé sa bu xalaat yu bon yoy ñewaté mu dal di big be xataay big lol ba ku ko xol xam ni na kérok lako ko noppee gis mu ñew wax ko ko ne ko li nga ma wax ana lu waral lol gis na ko gis na né ba ma bégee la dem mu ne ko lol du yow dina yow ya koy xalaat saytane yi ci ci boppam ñoo koy xalaat te saytaane mbégteem julit rek la bañ mënu ko dik fu bég fu julit bigé seytaane def na ni rongu def na ni bët joy jël na loxo tek ci bët di joy ndax mënu ko dékk mom la gëna bañ ci àddina loolu tax mané la bëggal sa bo bigee rek seytaane joy bu joy nag dana ben lul <laughs> yëngal sa xol bi de nga wax nga xamni ne loolu kon ab jàngale la yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne képp ko xamni ki kii jax-jax yooyu dalaa dikkel di wax ci mbirum yalla di wone nan ko bind yalla ak di wax wax yu mel nonu ak ndax yalla am nak ak tàmbaliwul fenn yimul fenn mi mane a nekkeeg yooyu boobaa bu ko tàmbalee xalaat na nga bàyyi xalaat ya te wax ne amantu billahi wa rasulihi gëm naa yàlla ak ub yonentam ku ñuy wax ibnu habbas radiallahu anhuma ci saaba yi itam wax na ne dees na ca wax huwa la wala wal axir wa zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ndax amuk yàlla sun borom tabaraka wa taala xel mënu koo xam boo xam rawatina fii ci àddina su xat su gàtt si nga xam ne mënee su fee xam xam-xam yu mag yu yu rëy noonu seytaan nag li tax nu tudd ko ci alxuraan alxannaasu ci saar bi nu doon tari léegi alxannaasu mooy bankukat bi ki nga xam ne bu ñu tuddee yàlla rek xana sa mu daal di banku nga xam ne kon tudd yàlla mooy ki nga mooy mooy ngànnaay yi nga xam ne moom la ñu mën a xeexee moom na ko Sëriñ Tuubaa limee ci téere bu mel ne mu xalaxut niiraan ak yi demee moom nga xam ne kon saa tuddee yàlla rek jàmmam jeex na day daal di banku boo tayee bàyyi day daal di lakk wala mu génn bàyyi la fa wala mu faatu seey kon loolu lu mat di fonk la am na fu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne lawla sayaatin la yaxumuuna ala suduri bani aadama la nasaru ila malakuti samawati budul woon ak seytaane yi wëndeelu gi ñuy wëndeelu ak gaw gi ñuy gaw dënni doomu aadama yi de fu ñu téene xool rek danañu gis malakutu samaawaati mooy li ci biir asamaan yi ak la ca gannaawam ak la ca gannaawam waaye nag seytaane yi nekk gi a nekk ci nekk ci biir xol yi sam ko loolu rek moo dox seen digganteeg gis kiimaani malakoot yooyu kon képp koo xam ne téen nga xool te gisoo la ca biir asamaan bi ak la ca gannaawam na la wóor ne seytaane yi nekk ci sa biir xol bi rek ñoo la ko teggis wala yaasu billaahi minhum yàlla na nu yàlla musal ci ñoom waa amin yaa rabbal alamin kon wet gu mujj gi ñu nu mujjale ko nu mottalee ko xisab usaamata bii nuy jan lool jële ko ci téere bu ñuy wax duratu naasihina yonente bi sallallahu alayhi wa dafa mas toog bis di waxtaanal ay saxaabaam di leen waar di leen fàttali yàlla muy wax ba yàgg ñoom ñëpp ñu jooy ba mu des usaamatum saydin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xool ko mu wax ko ne ko yow yonente bi yàlla bi maa ngi lay jàmbat sama xol bu wow bi xol bu wow rek ma tee jooy ni te yéen sallallahu alayhi bi yàlla ni ci gë na no yàlla saane ba da rek moo koy jox fàtte moo koy bàkk fàtte moo koy joxe fàtte dee yàgg mi bét moo koy joxe mooy saa nga naan nang nangam bu bu waxtu sàngam jotee yàgg mi bét bëgg na moo koy bëgg addina nag mooy bopp bépp ñawti am ñu mosul ñawti am na nit ku baax ku wax ne ay wépp def nañ ko ci bépp ci bépp